waaw waxtaan wi ñu ko jëmee rek ci lii euh, comme ni ñu ko waxee rek président Diomaye moom la ñu woteel moom Ousmane Sonko booleel moonu doy moonu doy ma di ko répété Diomaye président Diomaye dafa ne jub jubal ak jubbanti jub jubal jubbanti comme nag jub la wax te moo ne ci oto bi di ko dawal bu gisee mu jël weneen yoon weneen ñàll dañu ne koy yéegal waaye ne doo ci oto bee toog di xoole mel ni ku yurtum xel président bi xale la il faut ngeen doon ay responsable responsable yoo xam ne dangeen ko mën a jàppale ci am xel responsabilité yoo xam ne bu jàddee yoon wul yoonoo ñu ne ko yoon waa ngi nii responsabilité boo xam ne dañuy jub ci suñu bopp boole ko ak di jubbanti comme ni mu ko bëggee ngir yàlla ngir yàlla bu nee le africanisme rek xol yëpp naaw kenn waxu fi ne le Sénégal na jëli bagaasam ma di ko rek na jëli bagaasam dem fekki le l'alliance des états du Sahel kenn waxu ko fi kenn waxu ko fi li nit ñi wax te di ko wax mooy CEDEAO moonu safut France moonu intéressé wul armée sénégalais ci biir Sénégal moonu neexut waaw lu mu gën a gaaw moonu arrangé loolu la Sénégal yi yëpp di wax beneen ba ca desit ci africains yi suñu mbokk lañ bala ngaa ànd ak ma sàmba wala ma demb wala ngay wëri ab xarit kii nga dëkkandool mu sa voisin comme ni ko alxuraan diglee ñëpp sa voisin da koy respecté kan bokk wante dëgg kan avant l'islam bi ñëw Sénégal sa maanaam sa dëkkandoo day doon dëkkandoo danaan donn bu ne miraas bu dëkkandoo yi doon waa kër nijaay yi ñëw bu ñooñu dikkee waa kër bàyyi yi door a ñëw xeetu bàyyi kan doo ko waxante dëgg ñi del si ci suñu bopp te ngeen bàyyi complexe surtout yéen ñi jànge France dama ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay complexé lañ depuis que le Sénégal et le Sénégal Sénégal seen loxo la nekkoon tey nii réew mi dal li réew mi dal du kenn ku dul yéen amul benn benn benn benn maçon bu fi dëpp kees amul benn baykat bu fi dëpp kees amul munisi bu fi dëpp kees sëriñ dara bu fi dëpp kees vous vous appelez des intellectuels vous croyez des cadres Fait qu'il musiba réew des kenn boo il faut respecter sénégalais aux États-Unis sénégalais en Angleterre. il faut les respecter ce n'est pas seulement que dire parler un bon français que tu es un cadre Il faut war a dakk dafa war a dakk dara xamu la France en matière de justice

depuis dama ne depuis mille neuf cent quarante cinq phosphate de Taïba lu mu tibb jox ko France ñu jaay def seeni poos ba ci zircon bi bërki démb lañ ko trouvé ah bërki lañ ko trouvé pétrole bi doon tàkk bërki démb lañ door a xam ne Sénégal am na pétrole fekk tee ni yaa ngi yëngatu fii ci gajaga bi ci benn tàkkee képp lañ door xam ne pétrole am na ci réew mi zircon bii kañ lañ ko jël Pape Alé Niang ci jàpp te Paa ñu barki démb la judd démb la ci jàpp nu jàpp ci ñun yëpp coo ko ba Sénégal yi nga xam ne zircon te ba tey xamu leen ko ah vous les cadres yi am seeni i master xamu lu ngeen am France jànge ko fa waaye seen kayit yooyu booy ngeen ko ci poubelle bi kan waxante dëgg vous n'avez rien servi au Sénégal et que lii mooy li wax yéen a ma a xam waaw encore pour muy leer le Sénégal est une très grande nation Sénégal réew mu mag la Sénégal tubaab bi am na ñaar téeméeri at wala ñetti téeméeri at Sénégal amaa bu xam fu wala Mali wala Burkina Faso féete loola xam nañ ko adduna bi moo am coppiku gu bees goo xam ne képp bu ko newoon nga cee jóg te nañ cee jóge mooy egg ànd ak booloo dama ne armée sénégalaise bu jógee naan day ànd ak armée yi day ànd ak armée OTAN wàcc na loxoom wàcc ay góor lañ amuy droit topp ma Samba wala ma Demba suñ mbokki africain yii nañ leen tàllal loxo te xam ne ay nit lañ te la science est universelle xam-xam faj gàcce lay def faj gàcce lay def faj gàcce lay def kan bàyyi tubaab yii te xam ne noo war a ànd ànd bandalee ànd ak tubaab ba nëgën ñi amu leen lu ngeen añee amu leen ko te ñun ba nga xamee ne ba ñuy togg cere di ci def laalo di ci def mbuub wala yàpp wataboor tubaab bi du marina salade noonu la ko yéeye comme aw fos kon tey bu ñàkk xorom CEDEAO bii ñuy wax lépp kan waxante dëgg jomaay lu gën a xam tubaab yee ko moom waaw IMOVA bii ñu wax itam nga xam ne circulation xaalis bi ak finance bi ak marché bi France da ko confisqué un marché de quarante marché 400 400 et quelques millions de personnes France confisque les petits. Si on a des gens qui la koy te France on vous appelle des immigrés et tant que le français vient en France c'est un touriste ou un coopérant le français est appelé coopérant ou touriste nous sommes les sans-papiers nous sommes les immigrés nooy baadoole yi nga xam ne ñoo di leen baleel seen i kër ñuy raxas te seen banque centrale bi la fa lekk lépp muy or ñoo ko ca def ñu leen servir lépp bu doon ñun torox nañ France amul dara bërki démb képp bi ko les pays de l'alliance euh, du Sahel ginnaaw France dafa dof dafa dof dof buy dóore la tiital yi mu tiital waa Sénégal napp ñu yóbbu suñu fit ba ñëmoo ñu wax liñ bëgg dañuy soñ su leader yi ñu wax ko armée française dafa war dem inspecteur Pasteur di dara li fi di def xamu ko depuis 1896, mi ngi dakaro di pikir di jam ay fausses communes sax am nañ ko y avait des fausses communes au Sénégal beaucoup de Sénégalais ont été tués ah rey leen ci essai ay garab ñu don ay cobaye lolu ku nek Sénégal bu nafiqul xam nga ko après la dernière guerre mondiale bi rek gis ngeen ko le grippe espagnole bi la grippe espagnole gisone ngeen ko malade euh, garab garab gi Dakar lañ ko trouvé c'était le médicament de Dakar ñaata doomu aadama faatu pour ñu trouvé garab googu li fi nek nañ ko wax te delu ci taarix kenn wu su fe wax ne encore une fois parce que Sénégal day sos boo amul lu mu wax da lay sosal ñu leen gëna bëgg jomay ñu leen gëna fonk projet bi mais nañ ko teg ci yoon tegin bi ci yoon mooy li ñu promettre muy le développement kën focus jubal ci loolu

encore kenn waxul jomaa jëlal say bagage nga fekki leen nit ba nga koo fekki da ngay fekk moom état te ñoom amaguñ état ils sont en état de construire un état Sénégal sax amul état amu ko Macky fi nekkoon di pop ci suñ ko suba ngoon di duma ak di tëj ak di tijji Macky Sall la fi nekkoon ànd ak mbokk yi di jël al réew mi di ko sàcc état du mel noonu état day am ay soldats yi boppam te armée française mi ngi toog ci digg Dakar yor ay balam armée Sénégal sax mënta yëngu senegal amul état amul démocratie li ngeen gagné du élection dé du élec bu doon ay élection normal Ousmane Sonko bok, ci président Ousmane Sonko da ci bok mais du élection normal choix bi jaar yoon cour suprême liggéeyul lam ko war ha ah, cour ah corps constitutionnel bi defu dara ay bandé fa nek kan boo ko deug dëgg na len Ousmane a le droit de participer dans ces élections mais ci bok parce que Ousmane France dégage gogou mu faral di wax ak damay dàq armée France damay genn ci CFA bi ñu ne kon ki di ci bok lolu kep tax ñu téye tay bu ngeen ni Sénégal am na démocratie da ngeen nax seen bop Sénégal ak pays di Sahel yi ñoyam ñe dañu am fulde nak wa bi leen français bi sonalé askani yi xex arme bi di ki japp ci Macky Sall bam mu ben nit ñaari nit la arme Sénégal si waroon na jóg mais defuko dañu dañoo bàyyi Macky lim rey ëpp na 1000 ñim tëj ñim tooñ bari na lim fi sàcc alal kenn xamul lu mu toll terre bi amul njariñ terre bi dekkalu chemin de fer bi sax moo gënoon terre bi dekkalu chemin de fer bi moo ko gënoon su teer bi jëloon ko jënd ko ay bateau yu mag ñu ne ci biir ndox mi di napp ay jën ko jaay tubaab yi te dàq seen bateau yi ñu dem nañ dàq seen bato ñu génn tefes gi xaalisu terre bi jënd ko ay bato lu napp rek jaay leen ñoom ñu dem te bañ a napp ci géej gi dama liggéey ku ne man na ko nag ku ci mel ne man day lu ma xalaat danaa ko wax dama bokk ci réew mi bu ma ko yorlu itam ni ko jomaa yore war naa ko mën a yore noonu comme tout un sénégalais waaw na ngeen noppal surtout yéen ñii jàng France amul leen njëriñ Sénégal waaw def leen calculer leen ngeen xool lu ngeen fi def lu njariñ waaw wax naa leen sànq ne fii ci bërëb collège bi nekk New York ay coréen ñoo fa dajaloo waxtaan formé benn équipe bu dix personnes dem yibbi seen réew moonte une révolution intellectuelle ana luñ mujjee xool ni Corée mel te en 1960 li ñu am Corée amu ko tey xool fi Corée toll ak fi mu toll ah kan waxante dëgg te xam ne li ñuy def dara du ci dëgg ah, tubaab bi ngeen topp ci musiba la leen jëmee tubaab bii moo rey la Lamine Dramé tubaab bi moo rayon jéeri joor ndey la tubab bi mo rayon la joor tubab bi mo dem pir ko tubab bi mo lak Fuuta kon amuñu ben intention ben intérêt bo xamné nous suivons les blancs pour réussir kenn dër ci suñu bop nous avons des langues nationales langues yo xam ko développer pour gëna jallé information bi té ngeen may xel les étudiants yi nek fi aux États-Unis xam-xam lañ yor dama né man am naa quarante et un à quarante deux ans ci dëkk bii étudiants yi ak njàngam lemi sama musuma ci jog ni mu tëdde xam naa ko waaw France moo ne bu leen jël ñi diplômé Amérique parce que dañuy bañ ñu indi yeewu France moo leen a jàngal finance France li mu yor da koo sàcc comment un voleur man la expliquer ah finance France day sàcc amul dara kooku noonu la man a jàngale finance yow li nga yor momoko or bi nga yor sa banki momoko momo dara uranium bi lépp da nga koy sàcc phosphate bi da koy sàcc da ngay woo loxo africain di jël seen alal koko dem fa difa jang jàng finance sax du dëgg ah ñëw leen fii États-Unis gën benen formation en matière de finance pour ngir mëna gérer dividende yi nga xamne mo la Sénégal di for wa tant que difu leen lolu du ngeen mëna a jub moo fi denk kess nga lekk ko parce que France sàcc la France nga jangé li la jàngal lu baax néew ci moo tax boo ñibbisee sàcc rek ngay bëgg sàcc rek ñi fi dëpp kees ñëpp France la amee seen i diplôme ñi ci tane ñi ci tane sax moo ñu diplômé université de Dakar classe Ousmane Sonko gi képp mais ñi génnoon dem France jàngi ñëpp ñibbisi koo ci dénk kees dana ko lekk kon maa ngi jégalu bu baax a baax a baax di yi ñëpp te ñaan jàmm bëgg ngeen comprendre ma ni may waxee maa ngi yéen a far waaye dëgg nag dafa neexul foo ko fëgg rek day mel ay martu nga fa dur kon may ziar yi ñëpp di ñaanal ñëpp jamm yalla nañ buur yalla sutural yalla nañ buur yalla sutural te indi jamm ci réew mi do nga lañ bëgg te bu soobee yalla dañu ko am ci suñu bokki africain yii dañu leen jox loxo juboo ak ñom waxtaan ak ñom and ak defar parce que loolu rek fi solution waaw nit day and ak bokkam bi tuba bi ne tout ce qui se ressemble s'assemble sa maam dafa waxo dëgg da ngay fen da nga bëgg nax sama sëdi ay mbir mën nañoo nuroo te duñ bokk xorom ak sukkar gis nga ni nuroo boole leen sexeer xam ne bokkut sa maam yu bokk ñooy booloo te sa maam ni ci dëgg ay ay ay bokk dañuy booloo te ay bokk lañ suñ bokki africain yi ma ziare ñëpp nag une fois te jéggalu man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience